salaamaaleykum boo yi nga xam ne yéen a safoo seen chaîne bi di Saint-Louis TV donc ñëwaat nañu fi nga xam ne dañ miin muy fi mu miin lool muy euh, sunu sunu père sunu sunu sunu xarit lépp muy euh, docteur Ndoye donc di coordonnateur parti réew mi fii ci diwaanu Ndar ñu nar a tey ay waxtaan entretien bi boo xam ni depuis boobu léegi gis ngeen ni génn waxul donc ñun à saint am suñu plateau euh, balaa ñu sori dañ koy may rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxuñu ko data min nga toujours contenté bu ci euh, recevoir leen yéen waa saint TV comme ni nga ko waxee rek yéen moom fii mu sollicité dama ciy sawar moo tax damay kontaan ci recevoir leen fii. macha allah c'est namoon namoon jotaay bi waaw dëgg la namoon ngeen ko comme sax waa presse bi bari mais yéen moom comme ni ma waxee rek seen mën naa may gis. c'est donc mu mel ni euh, waxtaan bi dañ koy ñëw brusquement rek euh, def ni ni mu ni mu euh, bi nga xam ni Idy def na ko jëm ci Macky Sall donc boobu ba gis nañu kenn deful sortie bu weesoo point de presse bi ngeen defoon ko ci télévision yi di wax. Mm-hmm.

te waxam ñun daf ñu doy benen bi rek moy mom ci bopam aussi gis ngeen mo amé tout yëngu-yëngu ci ci parti tout yi ñu amat benen point de presse bo xamni defé nako na ko à Thiès beneen bi nga xam ñun dañ ko fassalul moy ñun fi ci Ndar daf nañ assemblée générale bu mag wo euh, ñi nga xam moy commune diwaan bi yëpp xam nga am 5 communes pour ñom ñu joxe sen appréciation donc ñu génné parti Abdoulaye Wade en eh, 2004. Mm-hmm. te mooy ñu wàcce ko en tant que premier ministre. Mais mm-hmm. il ko xatal ba ñun ñu créé parti Rewmi. Mm-hmm. Eh, mun naa wax ne boobu à la Sénégal sa nekk. def ko ak Abdoulaye Wade en 2007. n'est-ce pas jamonte war ak moom encore en 2012. yàlla def tamit Macky Sall gagné élection 2012 yi. Eh, moom mu nekkaat aussi accompagné accompagner Macky Sall pendant un certain temps. mais dama kisal Sall itamit eh, ci eh, ni mu doon doxale ak équipe am mu am tuti ñàkk déggoo mhm. te ñàkk déggoo fu mu am moom nga téye sa bopp moo ci gën mhm. te xam nga jamono yooyu xale yi nga xam ne ñoo ànd ak président Macky dañuy wax muut maa mott te fekk nag jamono yooyu gisoon nañ dëkk bi dafa laajoon ñiy wax lu ko yëkkatiwaat parce que boo ànd ak nit aussi lépp loo xam ne moo doxal seen biir da nga ko wax mais bu espace génn rek la donc loolu yëpp mu nekk opposant 2019 eh, xam nga loolu 2020 mhm. l'élection nag eh, bi élection en 2019 ñu gis ni kon ci bu baax dialogue politique bi le hein, dialogue national bi mhm. waxtaan am fa gis nañ ni ñaari parti muy mi ak ak APR pour

li ko jur moo doon dialogue politique bi wante niveau bi nga xam ne fa la dialogue bi nekkoon période bi période boobu ñuy wax noonu maanaam après élection yi boobu muy fës noonu période boobu dialogue boobu munu woon nekk dialogue boo xam dañ ko yaatal ndax su amoon yaatal kon président Macky Sall si boppam yaatal ko kon il fallait que ñu xool ndax mën na nekk ndax mënut a nekk bi mu demee ba yegg ci mën a nekk nag président Idrissa Seck moom ci boppam waxtaan na ak ñi nga xamante ni yenn ci ay kàngam yi nga xam ni moom la bokkal parti ñooñu évidemment nombre bu restreint la pour ñu xool ndax loolu war naa wéy ñooñu itam jox ci seen aval ginnaaw bi nag lañ koy doog nag yaatal ci kuréel yi nga xam ne mooy comme yu mel ni suñu kuréel xam nga wax naa léegi ne fii ci Ndar ñun def nañ assemblée générale bu mag commune bi ku si nekk prononcé wu ci affaire kon nga xam ne kon affaire yi moom dina yaatu kon nag niveau de xam nga jàll boobu dafa am niveau la niveau bu njëkk moom niveau boobu re la mënoon nekk loolu la loolu la anglais high ci kaw la est diis bi ñu wax ñi boobu la ñu koy topp moom moo sotti parce que parce que affaire bi dafa xaw a lus déjà ñun bu fekkee opposant doon wax Sénégal benn kenn fi nekk Idriss Seck donc tey bu ñu demee Sénégal yëpp te ko ci Idriss ñi moo fi nekk dem ba un bon jour fi nga xam ne kenn yaakaaroo ko mu fël la fa ah boobu noonu nga xam ne depuis bu yàgg ñu ngi wax est-ce boobu la la la firnde rek lenn Cheikh Moussa da kenn mhm. kenn fas fi nekk Euh, manam étiquette opposant toute la vie éternelle kon opposant benn moment bu nga xam ni boo si nekkee da nga wara a évoluer vers le pouvoir kon lool tamit ñu ko la ni ki mom opposant bu fi nekk nekk lool mom mun naa ni gisin bu xawa a kii beneen bi nga xam ne moo ci nekk nag mooy dëkk réew euh, am na ay responsabilités yoo xam ni ku si nekk war ne di ko seet par rapport ak dëkk bi te situation bi nga xam ne moom la ñëpp dund ci àdduna bi waxtuma laa sax Sénégal daaw nekk na situation boo xam ne ku nekk ku nekk homme politique war nga xam ne adduna bi am na changement yu ba bëri yoo xam ne am na changement yi am mm-hmm. mooy feebar bu mu ñëwee dafa am ay incidence économique yoo xam ne maanaam ci wàllu koom-koom bi ak yu mel noonu mm-hmm. kooku touché na ñëpp mm-hmm. te bu amee incidence économique automatiquement dafay nekk insidence sociale maanaam day yeggaat ba ci nii ñi parce que am na jamono boo xam ne yow bëgg a jaay sax dañ la tere génn ku bëgg a def nangam ñu tere la wala ñun la ci biir anam nga koy defee kon lépp gës. te situation boobu mun na nañoo ne fi mu nekk dafa tane mais changé ba ba léegi ndax mbas mi xam nga ni am na ñu ñuy wax deuxième vague mi ngi fi waat. Mhm. kon loolu ku am responsable war nga xool lan nga ci mën a def kon suñu fekkee ñun période boobu ñu ngi doon nekk ci dialogue politique bi. te dialogue politique bi moo doon ñu fexe ba pacifier espace politique fexe ba coow yeeg yëpp bañu fi am ba ñu dem à des élections apaisées moo xam élection locale wala législative wala présidentielle ci loolu lañ nekkoon. Mhm. mais situation bi fekk ni ci loolu ñu profité kon ci bir dialogue bobu waxtane Sénégal biñu waxtane waxtaanee Sénégal ñoom seen biir comme mu waxee muy président Macky Sall ak président de Seck waxtane si ñu gis ni boole doole yi fi mu nekk ni en tout cas nekk na loo xam war nañ ko mën a envisager. maanaam war nañ seet ndax mën na nekk. bi ko xalaatee ñu ciy waxtaan di xool ci yan anam la mën a dem ba am fu muy yàgg ci la ñu nag kon nag léegi war nañ ko ñëw yeggee ci ñi ñu ko seetal te mooy ñun ñii nga xam ñoo nekk ci parti ñun suñu parti ñu fa nekkoon ñëpp rafetlu ko moom tamit waa parti ñu rafetlu ko bu boobaa nag la ñu dégg kon nag léegi mbir mi mën nañ ko fësal léegi léegi léegi léegi li ñu ko li ñu ko dégg nga xam ne moom yàgg na léegi nag li nga doon wax léegi par rapport ak li mu nekkoon stade opposé effectivement ku nekk deuxième ci euh, euh, jongante présidentielle effectivement yow da ngay nekk le leader naturel de l' opposition kooku maanaam leader naturel boo xam ne ñëpp jàpp nañ yow ginnaaw président bi yow yaa fi nekk loolu daf ko assumer total te xam nga am na benn jamono bu nga xam ni eh, ñu ngi doon xool sax kan lañ jox statut bi mais ñun nangoon nañu mais soo seetloo bari na ñoo xam ne ci biir opposition bi ñu nga xam ne malgré que mu nekkoon deuxième ñoom ne nañu moom du leader kon ku nekk kon ñu ngi indi contestation ci biir bopp alors que naturellement moom moo ko war a nekk. ok kon xam nga ne loolu itam. Mhm. ak mu munti doon benn donne la boo xam ni eh, boo xam ni romb nañu. mais kooku ci responsabilité. gis nañu gis xam ne moom la ko dénk nii amul amul amul amul amul benn sens xam nga muy muy muy muy dox te moom dafa ñu war aussi ay décret maanaam. wax waxet boobu noonu du gisaat mu du dikkaat. donc est ce que jàppoon ni parfois tamit ñoom politiciens fi nekk pour seen bopp so faat nañu askan bi faat nañu ñi nga xam ñoom la ñuy àndal mbir moo gis rek da nga jox àqam parce que mbir moo gis mm. am na waxtu bu ko wax am na tam lu tax ñu wax dëgg la li nga njëkk a wax ci lu jëm ci euh, moom waxoon na kenn du ko fal par décret euh, loolu man jàpp naa ni ba mu koy wax sax moom su en tout cas si ku déggaloon ko mel ni man hmm. dinaa ko ne bu wax loolu dara personnellement lu tax. kon nag ngeen foofu mën a fa. non non wax ma yëg ma yëg attends hmm. dama lay wax rek ci na ma ko hmm. man dama gëm yàlla. gëm ni nit ki ëllëgam. ak lu mu mënti doon bul wax ma manière définitive. ni li ni rek la mëna a doon bul bul waxee kon ku nga xam pour falaté yow yow paré nga pour fal ay nit pour man yow tam war nga paré pour ñu fal la parce que loolu mo gëna a parce que yow bo nek président da ngay gën ay décret diko fal ay nit kon yow lu tax yow nga mëna a jekki aramal sa bok yow ñu fal la té loolu ku ko faral def soo moytul sax yalla eh, dina la rattraper ndax suñu borom mom tout day tek situation bo xam nga xamni kon yaangi tek sa bok parce que yonent yi sax gis lu mel noonu dañ leen daal salaahu salaam am na benn jamono bu nga xam ni ci biir njabootam am na jamono bu mu waxoon ni man kat nangam du ma ko lekk araamal ko boppam te fekk loolu dagan na du dëgg mais am na benn mois boo xam ne yàlla da ko jàjj ci loolu. kon loolu ku amoon boobu expérience laa wax ku fekkee loolu wala ku jàng loolu nga jàngaat ko di nga xam ni kon lépp looy araamal sa bopp rek na nga seet ndax loolu araamu na bon beneen bi nag mooy. waxoon na loolu situation toll na koo xam ne tey mënoon na ñëw yónni ay nit ci biir comme ni mu ko defoon ci bu njëkkoon amoon na ci expérience xam nga bii Macky Sall doog fa te mu doxaloon loolu mu am ñoo xam dafa ne yéen nañ dem nañ ca ma mais ñooñu ba ñëwee ci gouvernement bi itam Macky Sall dèjà wóolu président Macky Sall wóolu wóolu wóolu woon ci biir loolu te fesaloon na ko kon bu demaatee ba ànd war a ñëw daf koy ñaanaat ni gis bu njëkk ba. Euh, amuñ ci woon amuloon garantie bu doy tey bu ñu sañoon tey. mais déedéet est am na fa est-ce que ñoom du lu yàgg toog comme li Abdoulaye waxoon samay samay doom ñooy ñooy ñooy gouverner fii 50 ans est-ce que na ah, parce que non deal xam nga tax baatu deal. moom la moom la ñëpp mais baatu deal ci bopp laa bu ñu bëgg a waxtaanee. keroog maa ngi dégg sax mooy li am. Mhm. baatu deal foo ko gis rek am na koo ko jëlee maanaam soo dee biir rek ci kaw askan bi la wala ci kaw contre kenn wala lan alors que waxtaan pour defaraat pour yokk euh, avancer réew kooku mënul nekk diir diir mooy nga dem li ñëpp bokk nga nangu ko wala yu mel noonu est-ce que lii pour avancer dëkk bi la waaw parce que parce que parce que diggante ànd Macky Sall ak Idriss Seck la la mën a apporter Sénégal boo oh, bari na comme la bari xam nga léegi wax nga sànq mhm. ni ki Idriss Seck nekk le deuxième ci ay maanaam am na kóolute bu Sénégal yi am ci moom te loolu li tax mu am xarañteefam moo tax ndax dafa am fu mu jaar ak ñoom Sénégal yi dafa jaar ak ñoom ci wàllu nguur ak ci wàllu doxalin moo xam bi mu nekk premier ministre am ci wàllu xarañam fu mu yóbbu woon Sénégal en tant que premier ministre amaat itam ci wàllu liggéey ci commune Thiès yaa ngi dégg loo xam ne fu mu yóbbu dëkk mel ni Thiès ñu xam ne loolu fu mu ko mën répliquer

la nit ñi di xalaate ay xalaat yoo xam ne bu ñu ko defaree ba mu jekk parce que ay expert ñoo fa nekk ñoo fay nekk dañu man la ñuy liggéey. kon kon kon mën nañu jàpp poste bu am solo. poste bu am solo mais tax Sénégalais yi ñoo ko xamul. non moom moom ñu xamul ko. non ngangu ko nag déedéet mas ko ngañ. loolu la ma laaj non non non attends liñ ci wax xam nga mooy li ma lay wax rek. <laughs> Ah. xam nga très souvent Sénégal. Mhm. Euh, dañuy da ngay wax dara ñu waxee ko neneen mhm. ñun loolu mi ngi woon suñu programme bu parti dañ ni lu mel ni CSE dañ koy jël kii ko. nan ko décentraliser ko maanaam loo xam ne nekkatul loo xam dañ ko centraliser au niveau national mais indi ko ay pàcc mu dem ba àgg ci askan wi maanaam yóbbu ko ci département yi ak yëpp ñun loolu mu nekk suñu programme kon masul wax ni dañu koy dindi bi mu waxoon ñu dindi mais vidéo yi daw kon kon kon non ACCT la xam nga moo dafa am dafa day am yu hmm. dafa am beneen beneen haut conseil mu nekk foofu boobu la waxoon boobu moom nañ ko éliminer hmm. mais bii moom moo nekk suñu programme dañ nañ ko te ñu defaraat parce que bii dafa yàgg ni Sénégal yi nga xamuma yeneen ñoo bees yeneen yi mën na am consonance politique mais bii dafa mas a yàgg depuis temps Senghor ba léegi Famara Ibrahima Sané bii di dialogue di jiitu dialogue politique nekkoon na ca bopp parce que foofu la ñuy xalaatale Sénégal di ko yóbbu di ko jox ministre yi ñu ciy xalaat yenn saa yi bu fekkee dañuy laaj expert wala ci benn domaine ñoom seen bopp ñu yónnee la ko nga xalaat ci kon foofu post la bu am solo boo xam ne mën na avancer Sénégal te gëm naa ne bu fay Idrissa Seck toogee un an di ngeen gis lan la mën a yokkal Sénégal gëm naa ne bu fa toogee Badou Badou Badou la yóbbu fi mu yóbboon ba mu yoree ba mu nekkee PDS xaalis bi milliards yi ñëwul mu jóge ba Thiès ba bi ñëw indi si xam nga tamit boobu tamit wax bi am non mais gars yi ngay wax xam nga tey ah, tey man dama bëgg dama bëgg entretien bi ñu ñu teg ko foo xam ni population bi ñu ngi waxtaane ci mbedd yi dañ fi waxtaane parce que ñoom peut-être xëy na mu ngi si yow loolu njuumte la ndax Thiès boobu mhm. programme la woon bu nga xam ni du euh, décentralisation maanaam dañu bëggoon léegi goxu Sénégal yëpp ak bu jot bu amé indépendance ñi défa fa fête ba fexé ba dëkk gox bobu ñu manam ñi défa ko bu mu baax ñi dem ci benen dem ci benen dem ci benen kon nak décision jël ko yëpp ko ciess du Idrissa moko jëlo mais généraux armée yi nga xamné ñoy yara fête nationale ñom ñoo waxon ni kon fête fête bi bu dañu carte bobu nañ ko yóbbu ciess mais di won caaga dañ ko yóbbu ciess du fa ay milliards mu jeex programme la bu gudd bo xam dafa dem ci waral dem ci yeneen gox kon nag mu njëkkee Thiès ça veut pas dire que Thiès rek moo ko moom ok te ensuite décision bi tam du ma est ce que est ce que Baldé mënoon jàpp ni euh, mooy moom mooy leader si si si wàllum euh, opposant yi nekk fii non li wax am nga léegi rangé nga ci ginnaaw soxla rek. non non <laughs> du rangé ci nga. Mhm. rangé tey moom ci wàllu président de la République tey moom mooy président. Mhm. ku ñëw moom ci ginnaawam ngay nekk. ci teel muy yow muy man ak keneen. mooy rangé bi rek. waaye boobu moom mooy bi la daal mooy bi ma dal mooy bu dal n'importe qui ku nekk sànni. Hmm. kon rangé boobu moom ku nekk sa président moom mooy. yaa ngi ci léegi nag. Hmm. li ci bees mooy suñu parti. Hmm. moo ànd tey fi mu nekk ak mouvement mouvance présidence fekk fa yeneen parti yoo xam ni du APR kese. yeneen parti yaa ngi nekk je crois qu'il y a une trentaine ou quarantaine de de yi fa toog.

instant bi yéen ci loxoy Macky Sall la. non nekk ci bi moom jël ngeen réew bi ngeen jaay ko. jébbal ko Macky Sall yéen bi moom. na ngeen na ngeen na trop. ah ah mais mais ñun xam nga. d' a moom. moom parce que réew mi réew nga man toog naa nit waxtaan ak moom mi ma am na benn leader bu nekk fii à Saint-Louis. moom ko permettre mu tudd trop bu fekkee bëgg bañ tudd trop mais dégg naa daal fii la nekkoon ci parti réew mi mais dégg naa kooku

lu nekk waxal nañ ko fi nii ba tey Idrissa Seck mii lu nekk waxal nañ ko loo xam ne def ko kon nga xam ni kon waxal nit ni Idrissa dina ko téléphone wala jël xam nga loolu lu lu kii la docteur idi idi moom idi moom idi moom li nu mën a gis mooy que parti bi moom parti am la mooy décidé déglu si kenn ñëpp nee na lu déglu si kenn ah, man ne damay déglu ko non yow mën na la déglu mais. waaw kon kon nga kon kay dëggam man la mën a déglu nga xam ne ay responsable la nekk. mais mais tey su ma la nee nee dafa a ñëw rangé wu topp saa jox ko jébbal. parce que parce que am na ko jàpp sax genre jébbal dafa def jébbal foofu Macky Sall. jox jox jox jox jox xam nga man leer na. non waxu wax askan wi la. ñu man ci askan li nga xam ne moo am. mooy dëkk bi doon na ko nga xam ne. boole doole yi moo gën toog seetaan moom décision boobu la jël wax na ko leer na mais da nga xamul da nga xamul xamuñu si li mu ne xaaral ko ci moom. non waaye dama ko Sénégal xam nga lan la bëggoon ba ma toogee ji jënd ma. xam nga lan la war a xam nga xam jot na ko na ko wax. moom la waxaat nii man ma ko seetaanee man man dama dama ah, parce que vidéo yi wax yëpp mooy nan laay def ba Sénégal dem kanam tey ci loolu la nekk. kon tey jii du ma fal ko décret du ma ànd ak moom. non du ma ànd ak ma fa yóbbu. non du fa du waxuloon ne Macky Sall rek kooku defoon kenn du Macky kenn la ci am te wax naa la léegi ne la loolu moom ku koy ku koy jël décision tamit yaa ko sa bopp waaye yàlla mën na la woon le contraire mm. mais pour par rapport ak Macky Sall moom président la tey jii tey moo jiite réew mi mm. boobu ba léegi mënoon nañ ko seetaan nag nekk opposant fii ba 2024 mm. loolu benn possibilité la waaye tey tamit xool ni askan bi jàppale askan bi yërëm askan bi dimbali leen ba tey jii affaire chômage xale yi. ñu rek réglé ko ku ci mën a xale xalal Macky Sall ba loolu avancé ku mën a fexe ba napp kii nga xam ne problème la accord de pêche yi accord yeneen yi nga mën cee ba mu gën a nekk loo xam ne seen Sénégal yi daañu gën a jëriñoo yaakaar na kooku dimbali askan bi mm-hmm. nit ki nag su la nee damay def dara da nga koy may au moins un an nga xool mu doxal nga xool ndax lii mu wax am na wala amul. te tey li ma gëm. mooy Idrissa Seck mi ma xam. Mhm. lépp luñ ko mas a jox lépp lu mas a dugal loxoom loola changé te tey bu changé lool boobaa ñun maag yow dañuy toog constaté loolu. kon élection yi présidentielle yi ñëwaat wala yi mënoon nga. ñu ngi koy waaj. moom day day pose day déposé daal. bien sûr la ñu gëm. léegi léegi ci li nga xam ni jot na fi xew moom ak euh, Déthié Fall ndax temps bi des bëreetul. Euh, moom Déthié Fall gis nañ fi li fi xewoon.

président bi jëm ni ndeyjoor nga wax loo xam ku ko dégg rek day xam dafa jëm càmmoñ kon loolu dañu jàpp ni loolu moom ak lu mënti doon situation la boo xam ni neexul président Idriss Seck neexul mais lu waral loolu lu waral lu waral loolu noonu waaw loolu ba mu amee ñun dañ ko constaté rek ba mu amee itam ba loolu amee président jël na responsabilité président Idriss Seck jël responsabilité ni kat kii comme doxalin bii du doxalin vice président parce que loolu kon na xam ne du doxalin vice sa président wax ne nga jëm ni loolu kon nag kon ci wàll boobu foog ma dindi ndomba boobu. parce que ndox mi am koy dindi ma terminer xam nga rek soo ma foog ma terminer. mais mais dama bëgg xam lu ko waral balaa ngay terminer kii boobu noonu. Ah, <laughs> la laaj. ne ma li waral dëcc wax loolu non lu tax lu tax ñoom mun lu tax ñu am ñu am ñu am. ñu am kii boobu divergence foofu. waaw moom xam mais xam nga denc moo def déclaration bi. Mhm. te bi mu defee déclaration bi tam dama la bëgg a wax suite bi parce que loolu amul solo. Mhm. parce que li doon li am solo ay nit. yenn saa yi nga ñu déggoo wala ñu ñàkk a déggoo. Mhm. ci biir ay wax ça arrive tous les jours. même ci biir famille. sa diggante ak sa soxna yooyu de am. mais bu ñu toogaatee waxtaan bi dama la wax ne li mu laaj dans un premier temps wax ji amee moom. moo doon mu jël benn décision par rapport ak li mu def te du waxuñu vice te mooy mu jël décision boobu. bi mu ko defee tamit woo coordinateur yi leeral ngeen ko ñëpp d' accord ci ñu ni kon loolu la mais loolu dañ ko dépassé tey jii maa ko yow déedéet ci boppam. mais waxtaan nag ak président Idriss Seck ba ñun tamit dem ñu waxtaan ak moom ne ko yéen da ngeen war a gën a xool ni ngeen di dëppale seen ay mbir te it nekk loo xam ni dañ ciy attardé wu. kon ñun pour ñun situation boobu pour ñun de dépassé na parce que. man mii di wax yow. ok de de waa Saint-Louis la. délégation dem na seeni seeti ko. mu ne effectivement moom warul réer ak président Idriss Seck. kon te bu ñu waxtaanee jubóo. dinañ jàpp ne dinañ jàpp daan daan jubóo seen temps. incha allah ok euh, départ colonel Kébé bii di bii bii bii bii léegi moom jot na coow. non waru jur coow xam nga lu tax. gis nga parti bi mais mais docteur ñuy dem de. waa déet non kànga xam nga. waa kànga bi tam ni ngi ñëw. xam nga kànga mi ngi dem kànga yaa ngi ñëw loolu dafa ñëw fii bokk ci parti librement def fi boo xam ne dafa leer ñun ñëpp ñu kontaan ci mu xëy ba gis ni kii dafa war a changer direction ñu nangul ko loolu dong diggante mais gis ay Lamine Ba nekkoon fee ba si yàgg mu ñëw fekk suñu parti ak ñeneen ak ñeneen non départ lu ko waral lu waral lu waral mënul dem dem dara nga baal dam nga laaj ko ko mais yéen amul leen loo xam tamit stable bi non amul ñun xam nañ moom wax na li mu wax non déet moom wax na leer na nena na dama maa fa ñu woon dem com convenance personnelle sama mbiru bokk la. ok wax nañu lool du ñu bay ok kon yaq fi defu fi ñun ñu ko ñu ko dal ok suñu sañu sax mu dindu ci ok parce que ñun parti bi ñu yor dafa ubbe suñu sañu ñi génn ñëpp ñëwaat. ok mais ku ne gis naa damay dem fa rek parce que heure bi ngay dem amna na ñu ñu wax na la ko legi heure boy dem rek amna na ñuy ok bu sañu rek dem. donc donc donc non ba deux questions rek ah ñu ngi may signaler ma temps rek mais may. donc euh, dañu ñëw ndax ah Eh, oh, aywa <laughs> day ñëw ndar gis nañu gis nañu euh, ruy Fama Fama Demba bi nga xam ni dañ ko bëggoon euh, rebaptiser tuddee ki nga xam ne moo di euh, Bamba Dieye alors que Bamba Dieye moom jàpp na ni lu mel noonu du ko nangu parce que ñoom ay sëtam ñu ngi tuddee nañ ko tuddee xam ni mooy mbedd yi nga xam ni mbedd tubaab yi la donc na nga gisee gis-gis boobu na nga gisee. wax ci Bamba Dieye. ruy bi nga xam ne ko bëggoon tuddee ruy Fama Demba bi ko bëggoon tuddee fii à Saint-Louis. donc moom mi ngi kaay ah. dañ ko bëgg a tuddee dañ ko bëgg a tuddee. waaw mais moom dafa jàpp ni dafa jàpp ni buñ ko tudd tuddee rue boo xam ne ay tubaab lañ ko tuddee parce que ñooñu ki ko bëgg tuddee rue boobu ñu bëgg dindi jox ko ñooñu ay sëriñ ñu ngi dund ba ñu ngi fi ba léegi ah, kooku defe naa ni moom mu ngi ci droit xam nga lan laa gëm ci affaire euh, tuddee rue benn mooy conseil municipal moo koy def conseil municipal mooy nit ñi nga xam ne ñoo nekk askan ndaw ñu jël ay nit far leen ca conseil ñu nag léegi kenn bi agir en notre kon ñooñu ñoo ay proposition mais gëm naa ne bu ñu ko dee tuddee koo xam ne mi nga dund hmm. démarche bi gën a ndaw hmm. moo ñu dem waxtaan ak yow comme nag moom kenn defagul euh, session bi hmm. moom déjà rafetlu ko mais dañuy xool leneen lu mu lu mu yelloon ñu def ko amul problème foofu. ok est-ce que loolu na nekk. ok déggoo bi moom jàpp na ni nañ ko tuddee tubaab. nañu xool beneen tubaab. dé bi nga xam ne moom la ñu ko jël ñu jox ko suñu président loolu daal mooy li ma la wax waa conseil ba ñoom bu ñu xoolee. non mais sa gis-gis laa bëgg laa bëgg xam. non man man gis-gis am tey nga gis ndey avenue dëgg bi avenue avenue Dégueul bi euh, gorom le man daal xam lan mooy sama yow monsieur le yow euh, euh, non maa mais dafa mel ni li it moo leen dal yéen da ngeen nar a bàyyi affaire dëgg rek ñu rëccoo dem naan si ginnaaw saa waay. saa waay ah li di def nii. xëy na boo xam nga xam nga moo. man ragal ragal naa mais boo. dama lay wax dama lay wax leen ragal naa ngeen def lu saa yi non lu mënti am. Hmm. dama lay wax leen mu nga xam ne leer na. Hmm. tey jiite tey président Macky Sall def na deux mandats ci présidence. Hmm. dese na ko fii ba deux mille Sénégal fii ba deux mille vingt laaj na ko ko soxali. ñun dégg nañu décision soxali c' est une très décision. tey ji ñun ñëpp pare nañu pour def suñu doole ci loolu tey ji man ku ma woon ne man ministre wala nga woo ma ne man leneen élection yi baada jot élection yi baada jot ñu dem jàppale ñu dem jàppale mën na yenn saa yi nga posé question man xanaa yow dafa bëgg question boo ma posé da bëgg da nga bëgg leneen ñun loolu la ñu gëm ni mën na def léegi nag fii ba élec élection bu fi am moo fi am local moo fi nekk dañu ànd ak ñu ci ànd ak dem ci local su paree législative ñu ànd ak ñu ko ànd dem local dem ci législative mm-hmm. élection présidentielle bu ñëwee wax naa la président Macky Sall moom def na deux mandats léegi moom jeexal na ci ay mandats su fekkoon ne nag da ngay gis mu indi fii waxu troisième mandat ñun dañuy ñaan yàlla loolu bu mu nekk si xelam. na def bu ñëwee ndax na ngeen ànd ak a def comme ni mu def nii rek dem branche ginnaaw euh, ki fi nekk. non moo di fi nekk mais xam nga. ki fi nekk rek nga xam élection locale moom dama lay wax leen élection locale. Mhm. élection locale ña mhm. ñoo xam ku nekk seen réalité. li am ndar. Mhm. bokkul ak li am Thiès li am Thiès bokkul ak am Ziguinchor. mais pare ngeen ko dem. ñu dem fan. élection yi ngeen bañ toog bok, demal seen bopp. mais kat demal suñu bok nañ masuñu ko def ñun toujours coalition lañ mas a def dañu ànd ak ay nit. kon bok mag saa euh, comment dirais je euh, saa mën na xaar ngeen ñëw coalition ak mais avec pourquoi moom rek ñun ñu waxtaan ak ñeneen ak ñu jeex. kon c'est bon. kon jëloo ko ñu benn décision décision bi ñu def mooy ku ñu gis ni ki yow mi mën nañu ànd ak yow ci liggéey ñu ànd ak yow ci liggéey. Hmm. loolu lañ mas a def mais loolu moom gaa di <laughs> ya, eh, ngeen dem di ngeen dem si mbër bi. waaw dem ci mbër ñu dem ñu fenn xam nga lan la dem ñun ci askan bi la dem. yàlla doon de toute façon image yaa ngi vidéo yaa fi lu am rek mooy mais am nañu élection yi yi da ngeen daal di jug rek dem ba ci Mansour ñi ko Mansour ni ko indi dem woon si Macky. yow élection xam nga léegi sax yow il faut nga xam lan mooy élection locale. élection locale ay gox goxaan yu ay commune fi fi commune Saint-Louis y avons yeneen communes dans fi département Nous a conseil départemental de tout temps nous négocier ci loolu deux kuñ ci avons ak ñu nous gis ni ñoo en train De ci faire. mais moi, actuellement dañuy waxtaan moom dañuy waxtaan yeneen leader yo xamni fi nek ah, ku ñu kay ah, mais du pourquoi ñu exclure sénégalais comme donc ñuy tagoto man dama lay Euh, benn benn benn benn benn question la nga tàggatoo ak moom di bi. Euh, muy ñu ko jàpp ni nan la ñuy sunu sunu sunu sunu bi sunu borom xam-xam bi. jàpp ni instant bi dafa jeexal tàkk ci alal moo tax mu wax waxu nag population bi laajal ko ni parce que question bi wax laajal ma dafa dem dafa jeexaloon tàkk ba ay biens yenn biens yi commencé moo tax mu xam ne instant bi comme mooy loolu xaar ma ñëw range ci ginnaaw saa pour mën a jëlaat force. est-ce que mën na ko dëggal muy li may moom mën naa ko dindi. ndax wecc ndax xam lu ma koy wecc. Mhm. mooy président Idrissa Seck dafa am occasion plusieurs fois. Mhm. xam nga ci euh, mu na dem ci ay ay euh, am ñu mu àndal. Mhm. ci wàllu ci wàllu xaalis wala yooyu rek moo ko itteel. kon lu jël décision bu mu waxoon sànq. ni jamais plus plus jamais kenn du ma fal. bu kenn loolu rek moo. moo ah, est-ce que fekk na boobu jox la ko woon daal. jeexal. <laughs> franchement. <laughs> léegi daal xam nga leen ci am ci gàttal xaalis xaalis kenn mënu ko jeexal saa yoo ko jeex saa kenn mënu ca doyal soo ko yoree mënu mu yàgg-yàgg dafay jeex bu fekkee ne xaalis sama wala ittee bu xam ne kon yow doo am saa pour def lan ah, xam nga ku am looy am looy lekk am looy naan mm-hmm. am looy sutura da ngay jullit mm-hmm. naa ne waxu xaalis du du ni ma ko xamee xam ne ok looy tàggatoo. ah xanaa sant yàlla gërëm leen ci ñëw bi ngeen ñëw te eh, ci li ñu fi jot a leeral di wax rek euh, sénégalais yi nit bu soobee yàlla direction bi ñu jël gëm nañ direction boobu euh, su fekkee ni jàmm rek moo ci am mën na jëmee kanam Sénégal ñun nag suñu bopp rek la ñu lëngoo nag ñaar ñoo koy def président Macky Sall invité nañu ñëw nañu de manière sincère fas yéene ànd tant mu ngi joué jeu transhumance am na doole de. ah transhumance am na de. transhumance c'est man na doole de. la <laughs> yow da nga mën a wax tàggatoo mais ak mbay donc non transhumance amu fi xam ne transhumance. mooy nga jóge foo xamante ne amul dara dem di wuti loo lekk wala loolu dama dalu xam naa ni dalul président Idrissa Seck. kon nag loolu wax bu wax bu bu bu bu métti la boo xam ne. képp koo xam ne da ngay a defar. dañu ko wax ñun xam naa ni. bëgg bi ñuy bëgg a defar lu sincère la suñu suñu gisee rek leneen loo xam ne du fa nekk la ñu defoon daaw ak daaw jege rek ñun lu ñu gisul loo xam ne dalu ñuy tekkaf si suuf kon nag tey fekkee ni ñi ngi joué le jeu ànd ak ñoom ci liggéey bu soobee la pare nañu pour liggéey suñu fa gisul liggéey tamit amuñu benn honte bu ñëw sénégalais yi ne leen kat liggéey bi ni lañ fa gis ñu ko fa ñu bàyyi ko fa kon loolu amul benn sikki sax donc donc donc kontaan nañu non ba gis nga de temps bi yaa ngi may wax temps bi temps mais émission bi mel noonu dafa am tool boo xam ne moom. en tout cas maa ngi gërëm seen TV. Uh-huh. ñëwoon ngeen fii ñëwati fii chaque fois bu kii ñëw loola tax tamit. Mm-hmm. Euh, lu ma du may ñeneen sama mari. merci jërëjëf kon nag loolu. ok donc leen leen fi indiwoon ah donc ak suñu suñu suñu suñu suñu coordinateur nag bi di euh, docteur Ndoye gis ngeen li nga xam ne naka leeral élection yi nag man bu ñu wax ka lay àndal élection municipale yi ñoo ngi xaar.